dañ la naan lan Baye Ablaye murit mhm. ndigal mhm. Mhm. ndigal jëfe ñu lay taalibi cheikh jën nga wér de doo xool sa sëriñ la mu bëgg ak la mu la mu la mu la wax war nga ko wala waru ko da def armée moo raw lépp armée mën nañ jàpp ni ñoom murit ndigal ndigal jëfe y a pas à de midi à quatorze heures ci on te dit le président de la République ku mën a doon est le chef suprême des armées général o commandant o colonel lieutenant caporal gobi bi moo leen jiite ñoom ñëpp doon seen xalif général la mu wax amul laam-laame amul xool appliqué la ñuy def les militaires dem damay wax ak ñu bokk ci bat para bi nga xamee ni général kand ca la ca nekk gis nañ ko fi sax mu tëb para mu wàcce wàcce para xam lu ñu ma wax ne ma dañuy dañuy dañu koy waxal lu mu waxul wala ñu teg ko wax boo xamee ni waxu ko du xalaatu ko parce que militaire la d'abord et le militaire il suit la hiérarchie lam ko wax du ci xool du ci xoolaat du ci seet du ci seet militaire bu ñu ñëw tey commandant woo général loo koo mën a doon yàlla na nga def de haut fait d'arme ñu ne la def nga lu bari Casamance ba nga koy def ku la yoon ni ku la jox moyen ya nga ko defee ku la teg fa nga fa nga nekk ba yow nga mën a jiite troupe ne leen def leen ñu def bu dee yow muy général yaa naan troupe bi def leen ñu def massa kii di co euh, euh, commandant supreme ki nga xam ne moo leen jiite yéen ñëpp sama njot bu rafet. général Kandé li ñu koy wax loo wala li koy waxal waxu ko naan damay dem cour suprême parce que d'accord ma ci yóbbu bu ñu may yóbbu New Delhi un militaire il exécute des ordres que les ordres soient yu baax wala yu bon il exécute les ordres parce que ka koy jox ordre laataa mu koy jox ordre dafa am staff bu koy wër mu laaj leen ne leen lii laa bëgg a doxalee noo ngeen ko xalaatee nan ngeen ko gisee ku nekk joxe sa xalaat mu seet xalaat yépp segg seet ne ni ordre bi may joxe nii laa ko bëggoon joxe waaye naa ko wëlbati nañu bañ a defee nii ndax dafa am stratégie boo xamee ni da nga am ay stratégie yu lay romb yu den ak yow ñu lay wax ci lu mel noonu mais que tu prennes un journal boo xamee ni xamoo ku ko bind xamoo ku ko titré xamoo ku ko signé nga jël ko ne ko daj sa sa kanamu journal wala nga toog di ko wax ci télévision wala ci rajo laajte woo j'ai vu un le colonel Wardini jiite woon DIRPA ci ay jamono c'était un voisin ma koy ziar dendoon kër takkoon kër la mu wax mooy ñun militaire dañuy jox ndigal ñu jëfe ba pare ñu delloo si sax ne la génneel la j'ai eu des anciens ministres et pas n'importe qui au téléphone démb qui m'ont presque beaucoup m'ont appelé pour ma dire la nga wax lool lañ lan lañ ci jàpp mooy le président de la République nom au pouvoir au poste civil et militaire les emplois civils et militaires moom mooy nommé lu ko neex lay nommé waaye moom mooy nommé constitution moo ko jox ñu ne la ñu yónnee ma sax ba ci la décret boo xam ne le 29 euh, mars lañ ko signé président Macky Sall pour déterminer kan moo mën a nekk pas attaché militaire rek mais attaché et de sécurité wax naa leen démb ni Suisse ay généraux la ñuy yónni yónni sax ay colonel ak ay yenn ay généraux la ñuy yónni mais mieux jëlañ fi général général ah. ne ko aide de camp nga ah. luy aide de camp minimiser wu ma seen liggéey mais luy aide de camp. bëkk néegu président mooy bëkk néegu président teel ma sama sac ngay dem taxaw ci pupitre pour liir benn discours mu indi la discours bi tegal la ko. ngay dem bàyyi fa kayit bi mu ñëw jël kayit bi téyel la ko. minimiser wu ma ko de parce que dañu nekk dans le secret de lépp lu président di def. Mhm. mais mooy bëkk néeg bi mooy ki ko gën a jege. mooy ki ko mën a fëgg. 2 mhm. heures du matin. ne ko dara am na. Mhm. avant keneen di si wax. Mhm. ay euh, chef de cabinet ku mën a doon aide de bi moom mooy ki jiitu moom mooy ki sës rek mooy bëkk néeg bi jël nañ fi général def ko bëkk néeg. Mhm. jiitewul lenn bëkk néegu président la jiitewul lenn. président mooy jiite. jël nañ fi général yàlla suñu borom xaare ko def ko gouverneur maanaam kaay jiite benn région. Euh, le général euh, Ablaye Niang il était sous-chef d'état-major général des armées ñu ne waa léegi Casamance yow miin nga Casamance xam nga Casamance kañ def la gouverneur u euh, Ziguinchor maanaam jël benn pàcc ci réew mi jox la ko bu ñu la jafee gouverneur u Ziguinchor chef d'état-major général des armées moo la yilif en tant que ci wàllu militaire moom bu ñëwee sa sa dëkk sa Ziguinchor yaa ko yilif ndax yaay représentant wu président bi mm-hmm. foofu ñu ne la général boo mën a doon ci àdduna mm-hmm. nga bokk Sénégal mm-hmm. le euh, kii di attaché de défense et de sécurité bi que ñu yónni fële ca New Delhi boo fa demee moom moo la chef yàlla nga ko ëpp grade ëpp ko lépp ëpp ko ancienneté moom mooy attaché de défense et de sécurité ci dëkk bi nga ñëw boo fa ñëwee. Mhm. da ngay topp ci ginnaawam. waaw où est le problème pourquoi est-ce qu'on veut en plus politiser les choses dans le non Ousmane Sonko moo ne woon dañuy woo Russie dañuy dàq Canada dañuy dàq euh, euh, euh, États-Unis mhm. dañuy génne France dañuy génne mais ay dëkk yoo xamee ni kenn mësul wax ci ñoom mhm. Canada États-Unis lan lañu defalul ci réewum Sénégal te ñuy continuer di ñu ko defal pourquoi est-ce qu'on veut prêter à quelqu'un ce naa n'a jamais u sëkki ce qu'il n'a pas dit jël ko teg ko ci à la une des des quotidiens toog di ko waxtaanee ci ay plateau ne ni Ousmane Sonko moo def nangam defu ko. ka bind loolu sax wala ka wax ni moo ko bind. ka leen chef dafa ñëw na ni ñun mosuñoo bind lu mel ni ñu jël ko yaa a beaucoup de manipulation dans cette affaire. Mm-hmm. mais réew doo manipule loo xamee ni mën naa taal réew. réew doo ci wax wala nga ci def loo xam ne mën naa indi jafe-jafe pas seulement ci réewum mm. Sénégal mais même entre le Sénégal et ces pays là yi nga xam ne ce mm-hmm. sont des pays amis sur le plan diplomatique nga ñëw ne ni non Canada dañu bëgg mu on va rompre tous les accords lu jëm ci wàllu militaire ak Canada nga ne États-Unis mm-hmm. actuellement ñu ngi def ay opération conjointe mm-hmm. opération mixte di jàng entre soldaaru Sénégal ak soldaaru États-Unis Canada également dañuy jàng entre soldaaru Canada ak soldaaru Sénégal mhm. nga ñëw ñu ne non non lañu ne ni loolu day dañ diggante France ak Sénégal am na loo xam ne am na fi. Mhm. ce sont des anciens colons ñoom ñoo ñu colonisé woon mais teewul am na ay rapports yoo xam ne xam nga lan la président de la république. ak mhm. premier ministre wax ci suñuy rapport na doon ra rapport wu nga wekk ma ma wekk la. pas question wu non yow yaa ma jiite wala yaa ma jiite woon wala yow yaa ma ma. li fi xew mooy danga may wekk ma wekk la échange bi war a am mooy échange gagnant gagnant muy partenariat gagnant gagnant échange boo xamante danga may respecté ma respecté la. Mhm. ñu jël benn réew ne la fii Inde la moo ëpp daanaka ci àdduna ci wàllug ay nit ñu fay juddoo lu fa yeewoo ñu ne la yow yaay conseiller de défense et de sécurité ngay général ku la ko wax. le chef suprême des armées njort naa ci sama rafet njort ce n'est pas le général Souleymane Kandé mhm. qui va dire non non je suis pas d'accord yow président au contraire yow président su ma woo ne ma maa la yebal bërëb sàngam dama ciy sawar mhm. parce que je réew mi moo tax mu yebal ma foofu mhm. il faut que les gens soient sérieux dans ce qu'ils disent ou ce qu'ils font et surtout on peut pas se permettre de prendre n'importe quelle information ñu ne ko dajj rek nga jël ko rek jël teg ko après ñun ñu toog nii débat ci chroniqueur bu mel ni man xam lépp mën lépp wax wax boo xamee ni fa muy mujjee mais dafay extraordinaire parce que mën na indi ay jeexital gis ngeen lii bu doon c'est un journal sénégalais moo bind ne ni lii moo am Sonko moo wax nangam président Diomaye ne ko d'accord kii nangam nangam bu ñu xë bu ñu ko jëloon woolu ko dikk woolu ko ci kanamu procureur ñëpp mbamb ne non lu tax ñu koy woolu euh, média xaw ma lan délit d'opinion alors que la mu wax mën naa taal réew la mu wax mën naa indi jafe-jafe diggante suñu réew ak yeneen i réew su le plan diplomatique. mais woo nañ fi Birame Souleye Diop ndax la dafa tudd pas ñun Sénégal lu mu doon wax Sénégal amul problème mais da cee boole réewum jàmbur ak président wu jàmbur. ñu bañ mu am benn conflit ci suñu diggante réew ñu woolu ko il faut qu'on fasse attention je suis pas là pour donner des leçons je pars sur des faits. et sur les faits absolument rien du tout aujourd'hui mën na la prouver ne la ne général Kandé mooy on peut disserter sur est-ce que waroon nañ ko def sur l'opportunité c'est le temps qui décide dañ ko ko nangul dañ ko fal ñi ko fal ak ñi ko falu ñëpp se le président de la République du Sénégal la mu décidé amul ku ci war a wax quoi que ce soit laataa koy décidé day am yoon bu muy jaar day am ña muy waxtaanal day am la muy def ñun xamul lu ñuy gis décret la ñuy gis ñun xamul lu ñuy gis décret un décret nga bëgg ñëw ne commenté ko noonu non warul demee nii président da ko da ko dàq da ko exilé ndax lan wut na ni neneen Sonko nee na il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. on va continuer ak yow Pape Makoura Lamine Senghor mu nuyoo ñu ngi ziar Senghor.